la fiabilité de l'information notre quotidien di 24 actu bàkk ba jibati na ami internet yi lépp loo xamante ni rek actualité la dañ ci ànd ak yéen di leen ko faram-fàcceel comme ni mu waree tey nag ci talaata ji yem ak juróom-ñetti fan ci weerum décembre atum 2020 li nga xamante ni nag moo gën a fës nag ci internet bi du leen lu dul mbas meek tolluwaayam ci biir réew mi gis nañ ne nag jamono ji jund ak yokkutiku bu baax a baax ci nag 844 tests yoo xamante ni Sénégal amal nañ ko tey 42 naka ñu ci daal di ñëw daal di positif maanaam amee jàngoro ji ci biir 42 yooyu nag am na ci 14 cas contact 3 cas importés ak 26 cas issus de la transmission communautaire cas communautaire yi nag gox ya mu feeñ bokk na ca Mariste am na ci 4 cas Richard Toll am ci 4 Matam am ci 3 Saint-Louis am 3 Diourbel am 2 Dakar Plateau am ci 1 Fann am 1 Kaolack 1 Louga 1 Médina 1 Nord Foire 1 Parcelles Assainies 1 Sicap Baobab 1 Thiès 1 Yoff am ci 1 58 patients yi ñu hospitalisé woon nag wér nañu ba dellu nañ seeni kër Sénégal nag am na lu tolloog 11 ca grave ci seen service de réanimation démb nag ci altine ji nag Sénégal amul benn yoon décès bi mbas mi nag duggee ci réewum Sénégal ak léegi Sénégal wàññi na lu toll ci 16 596 cas ci biir loolu na 15 864 yi wér nañ ci 340 ñàkk ci seen bakkan ren ñi ñu saytu nag ci lali hôpital ñu ngi tollu ci 391 ministre bi nag di gën di ñaax askan bi ngir ñu sàmmonteeg mesure barrière yooyu yëpp ngir xeex bi ñuy xeex mbas mi mën a gaaw génn nag ci mim réew ci mbas mi nag la ñuy daal di dese ni ndax gis nañ ne démb ki nga xamante ni nii nag moo di Antoine Félix Diome daal ne génn nag daal di génne waat décret boobee nga xamante ni mooy di port obligatoirement du masque ñu gis na nag démb nag police su Sénégal daal dañuy jot a jàpp nag lu toll ak 500 ngir nag ñàkk takk masque te gox yi nga xamante ne ni jàpp nañ leen ca leen ludul nag ca banlieue ba mu di Parcelles Assainies yi ah, Pikine ak nañ leen di jàpp ngir nag ñàkk takk li nga xamante ni moo di masque yi te nag ci fàttali nag li nga xamante ni nag moom la ñuy fay ci koo xamante ni jàpp nañ la te takkoo lii di masque mu di 3000 francs kon nag ñi gën nag di soññaat nag askan bi ñu gën a fonk loole nga xamante ni moo di takku masque mi ngir ñu xeex bi ñuy xeex mbas mi mën a gaaw nag jeex nag ci mim réew ñu wax nag bi lee yoon nag ci wàllum politique ndax gis nañ ki nga xamante ni moo di Jules Diop ginnaaw nag ci ab entretien bu mu seqoon nag Babacar Fall lam ca xamle rek moo di kii di Khalifa Sall daan na gisanteeg njiitum réewum Sénégal te loolee ca avant Covid bi la woon mu nee na moom moo fekkee te moom moo gis ndax gis na ne Khalifa Sall ak njiitum réewum Sénégal daan nañ waxtaan. ginnaaw bi nga xamante ni Jules Diop yëkkati na yooyu les kàddu jur na nag coolu rëy ci réseaux ki nga xamante ni moo di Cheikh Gueye bokk ci manko taxawu Sénégal nee na li Jules Diop wax dara amu ci ba tax sax da koo daal di tuddee Mouhamed Sos Diop nee na ñett yoon rek la Khalifa Sall te loolee nag nekkul benn yoon lu dul ca 2012 trois mois après l' élection présidentielle yi te loolee la nekkul benn yoon lu gisee ba 2014 la bi ñuy déposé liste yi pour élection locale yi beneen bi 2019 duggee ci réew mi te boobee gis nañ dem ci seeti ki nga xamante ni moo di njiitum réewum Sénégal ngir waxtaane mbas mi nga xamante moo duggoon ci biir réew nee na naka ñetti gisa yooyu rek la xalifa Sall daal di gisante ka Macky Sall nee na loolee di jëw wax nag dara amu ca te nee na moom sax ki nga xamante ni moo di njiitum réewum Sénégal opposant bu dëgër nag topp ko loolu moo gën ci moom te tey moo gën ci suñum réew nee na opposant bu dëgërut bu amul loole baaxu ci réew mi tey baaxul ci ki nga xamante ni moo di njiitum réew mi Sénégal ki yëkkati yooyu les kàddu rek moo di Cheikh gay bokk ci Manko Taxawu Sénégal ba tey rek dañuy daal di desandi ci coowul Jules Diop loolee daa gis ki nga xamante ni moo di muut ban nag daal dina yëkkati nag ay kaddu daal cee jëmee nee xalifa Khalifa Sall gisanteek ak Macky Sall nee na loolee nekkul benn yoon événement ndax nee na jamono ji nga xamante ne nii Khalifa Sall tëj nañ ko foofee ca rëbës am na ku ko woo ay 4 heures du matin xamal ko ne ko Khalifa Sall euh, jugee na ba dem fa nga xamante ni moo di immeuble Ndiouga Kébé ba woo ko sax pour mu ñëw xool si ko waaye nee na moom amutoon boobu jot ndax nee na boobu heure boobu guddi na. loole moom mu ban nag lam ci jublu mooy nee na leader politique yi la ñuy def ak la ñuy bàyyi ñi nga xamante ñoom lañu bokkal sax parti bi mën nañ koo bañ a xam te nee na bu fekkee gisante ni ñoom am déet nee na loolee nekkul benn yoon événement. dañuy daal di wéyandi wax bi la yoon rek ci tukki géej gi ñu gis ki nga xamante ni moo di Ndeye Ndack Touré dafa daal di dajale woon xale yi nga xamante ni ñoo nekkee foofee ca Mbour daal di leen di sensibiliser lam ca namu rek moo di bëgg rek ñu bàyyi phénomène bii di l'immigration clandestine maanaam tukkib géej gi daal di gëm nag slogan bi di toog fi tekki fi Ndeye rek daal di nay demander xale yooyu nga xamante ni ñoo fa nekk rek ngir bu ñu amee ay projet jëm ci li nga xamante ni moo di entrepreneuriat ñoom seen association boobule pare nañu ngir daal di leen di jàppale ba daal di bàyyi li nga xamante ni moo di tukkib géej gi te def li nga xamante ni moo di toog fi tekk fi ndaxte nee na loolee lu mën a nekk la association boobu le rek yamuñu ca ndax na ne danañ def seen kéem kattan ba lépp loo xamante ni rek dafa daal di nar a indi ay danger jëme ci jeunes yi danañ ci def seen kem kattan ba taxawul leen jàppale leen ngir ñu mën a bàyyi rek xalaat yooyu nga xamante ni amee nañ ko di jaay seen bakkan ngir mën a tekki dañuy daal di desandi rek ba tey rek ci tukki géej gi ndax gis na ki nga xamante ni moo di da Faye nekkoon xale boobee amoon fukki at ak juróom te daal di faatu woon rek ci tukki géej googulee te loolee ko ko yabaloon rek mu di waajuram bi di ma Mamadou Lamine Faye mu nekkoon nag mbir mi nga xamante ni moom lañ gënoon na waxtaane ci réseaux sociaux yi mu di xale boobee am fukki at ak juróom te daal di gaañu woon rek ci gaal yi waajuram boobu nag daf daal di yabaloon Espagne ngir bëggoon mu jàng li nga xamante ni moo di euh, football ba génn leen rek ci pauvreté bi nga xamante ni ñu ngi koy dund waajuram boobee nag atte nañ ko niki démb foofee ca Mbuur moom la ma di Lamine Faye nag yoon daal na koy tëj lu tollook ñaari at yi kaso waaye nag jotoon naa tëdd li nga xamante ni amoo di benn weer waajuram boobee nag regretté na lool li nga xamante ni def na ko ko doomam joojule ndax nee na bu xamoon ne bu demee day faatu kon du mës a jël xaalisam ah, di ko ca dugal ñu daal di wéyandi nag bi leen wax ci ki nga xamante ni moo di Aïda Samb di chanteuse boobule la mu xam ne rek jamono ji ci benn entretien bu mu amaloon nag waa l'observateur nee na jëkkër rek la bëgg li bëgg rek moo di am jëkkër ju baax daal di am ay doomam daal di fondé li nga xamante ni moo di foyam nee nag du jug ci di ñaan yàlla suñu borom mu may ko mu am borom kër kon nag ñaanam googu nga xamante ne nii ah, mi ngi koy ñaan ñu ngi ko koy ñaanal suñu borom mu nangul ko ko may ko li nga xamante ni moo di ah, bëgg-bëggam boobule ah, di borom këram ki nga xamante ni nag yàlla suñu borom may na ko borom këram muy feetu muy feetu jamono ji ba ku ko gis rek xàmmee ko ah, mu di Daba Ndiaye VIP sañse bokk ci série boobu lee ñu tuppee à ah, VIP mu daal di sol nag yére bu rafet di wane li nga xamante ni moo di mbégteem ñi di ko ñaanal nag sëyam boobu lee muy sëy yàlla suñu borom ko ca nag njaboot gu barkeel ah, tam sax fa dàkk dañu koy daal di jeexaleeg nag juróom-ñetti fan ci weerum décembre niki tey ci la ñàkkoon nag suñu ñaari kilifa yooyu lee di Serigne Moustapha si ak Serigne Mansour Sy mu nekk nag benn pett bu rëy ci Sénégal rawatina nag ci comité Tidiane mu nekk nag ñaari date yoo xamante ni kenn dootu ko fàttiti fii ci Sénégal mu di 8 décembre 1993 ak 8 décembre 2012 muy Serigne Moustapha Sy Djabel ak Serigne Mansour Sy ñu leen di ñaanal suñu borom yokk seen leer te taas ñu rek ci seen barke lii rek moo fi gënoon a fës ami internet yi dig daje rek lay doon ba ëllëg ak jàmm.